bismillaahi rahmaani rahiim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu asbaxna wa asbaxal mulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inna nasaluka xayra ma fi hadlim wa xayra ma baad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 jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mën kon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak ceraanga ak poche def dara liñ ñu ko baaxut defee fajaru samdi mooy waxtaane lu jëm ci kër gi kër gi famille bi boroom kër gu góor gi ak boroom kër bu jigéen bi ak doom yi ak surga yi nun nag sunu kër ni muy tëdde noonu la lislaam gën a bëgg ci ni këri tubaab di tëdde kër goo xam ne gi ku dul monsieur ak madame bokkoo lislaam bëggul kër googu lislaam kër gi mu bëgg mooy kër goo xam ne gi boroom kër gi day bokk ay mbokkam bokk ñépp bokk waaye ñi nga xam ne ñoo bokk si dañoo war a doon ñoo xam ne fii leen yem loolu la ñuy yem ndax léeg-léeg kër gi ñu wàll si lëjal kër gi lëmbaaji ko léeg-léeg mbokki ku góor ki lañuy doon song ku jigéen ki léeg-léeg mbokki ku jigéen ki la ñuy doon song ku góor ki doomu aadama nag sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon daa war a doon ku neex a dëkkal sam'an isa baa wa sam'an isa stara wa sam'an isa taxaada kër gi bu fekkee nogay def cee nekk doomam ju góor takk jabar nogay ñëw nekk fekk jabar yi doomam ju góor nogay waroon naa neex a dëkkal ci kaw lu kiy togg yët ko mu ne ko neex na bari na loolu mooy dimbale euh, doomam mooy dimbaleel kii sëy si waaye bu fekkee lum taaj mu ne baaxut ataajum tàggu mu ne neexul fu toog di ko fa tooge loolu itam day yàqal doomam ju góor day yàqal pénc mi mbokk yi tolloo nañu ak ci wàllu wóof alxadaana te mooy ñaar ñuy sëy tas nañ ñu jël doom ya jox seen yaay ba baa màgg ndax lislaam gis na ne wóof gi yaay di wóof mu ëpp avantage ci xale bi fuuf waaw loolu ki bind nit ñi xam na loolu tey dama ñëw ci beneen tomb bu am solo mooy kilifteef kilifteef gone day soxla ku ko yilif mag sax bu amul ku ko yilif ñaari àdduna ji tukki lay doon moo tax lislaam bay xel loolu mooy gone gi day am kilifa bu dee gone gu góor bu dee gone gu jigéen mu am kilifa te bañ a xeeb kilifaam nag sikk suñ wax ci kilifaam na ko yokk mu gën a fonk kilifaam ñi amoon kilifa démb ñépp a noppalu ñu ñàkk kilifa démb ñépp a sonn ñi am kilifa tey ñépp a noppalu ñu ñàkk kilifa ñépp a sonn léeg-léeg nit génn àdduna ñu yóbbu ko ca armeel ya di ko denc bu amee kilifa denc ba day dal lu mu wax gaa yi def ko bu amul kilifa nag ku wax am ku la weddi ku wax am ku la weddi coow kur waaw Ablaye Mbaye Peex yàlla na ko yàlla yokk wér day wax ne bi rëbb bi gàddoo fetal gi jëm ci àll ba di rëbb bi ngi romb bëy ci kër gi mu dem ba ci àll ba fekk fa moroomum bëy mu tudd kéwal niroog moom lool mu dóoru ko bal mu daanu mu rendi ko gàddu nena li musal bëy bi ci kër gi mooy daa nangu kilifteef danger bi nga xam ne ci la nekk ba tax ñu dóor ko bal rend ko indi lekk ko ñàkk kilifaa ko ko teg kon kilifa ci mbir yi la bokk waaw ah, kilifa ci mbir yi la bokk ku góor am kilifa ku jigéen am kilifa ba demee ci Euh, lenn ci réewi arab yi nga xam ni ñoom seen constitution day am lu baree bari ñu tibbi ko ci alxuraanul karim ñoom seen luwaaye loolu daf koy am day am tombi bi kilifteef kañ lay tàmbali kañ lay jeex ki ñu yilif ki ko yilif nu mu war a mel waaw loolu dañ koy def ñoom ca seen yëf yi moo tax kilifteef ki yilif xale bi day yilifaale am amam maanaam bi nit ki yilifee gone gi day yilifaale xaalis bi am walla alal ji mu am bu dee xar mbaa nag mbaa ay bëy mbaa xaalis kilifa gi mooy yilifaale loolu dencal ko ko bu dee xaalis mu di ci yaxantu ndax mu sakkan bu amee lum lekk mu bañ caa tibb dara bu fekkee kilifa gi amul lum lekk mu cay lekk bil maaruf waaye nag bu mu ko saax-saaxee rek bëgg ko yàq balaa gone gee màgg loolu dañ koy aaya ngoog eh, su boobaa kilifteef bu ko gone gi màggaale bokkut ak yeneen xeeti kilifteef yi nga xam ne nit ñi dañuy bañ ku leen di yilif wolof daana wax ne ku nanguwul kilifa yilif la seytaane yilif la walla jinne yilif la te kilifa ak jinne moom ku ko am ba metut fa ngay dem moom du baax kilifa googu nga xam ne daa yilif nit ki ci jëmmam di di sàmm ab yaram di sàmm am njàngam di sàmm ay àndandoom ndax ku yilif nit ñaare dañuy bëgg nga bàyyi xel yooyu ndax milieu yi léeg-léeg muy yàq gone yi léeg-léeg gone yi dem di ñëw nga bàyyi ko rek comme ça ni benn bis mu indil la loo xam ne li du noonu na gone yi nga xam ne dañuy dox ci seeni xel jenn waaye mooy def lu yéeme rek wala sax defut lu yéeme ah waaw daf la dugal ci tappale rek nga ne di koy gëm ànd ci ak moom léeg-léeg gone yi sa doom jékki-jékki ñëw rek indi la loo xam ne li kenn xamu ko waaw baay ji xamu ko yaay ji waxi noppi rek tabarkàlla kon xale koo xam ni kii danga nekk kilifaam dangay fexe mu di la jege da ngay fexe mu faan la d'abord balaa faan kenn waaw balaa faan moo xam góor la moo xam jigéen bu la say doom fànee duñ fan keneen ndax maa jaala lahu li rajulin min qalbayni fii jaw fi waaye soo bàyyi nu rek comme ça defe ne fu leen neex xëy neex gont léegi tey ñu indi ci kër gi lu ci bokkut moo tax kilifa gi daa war di sàmm xale bi waaw ko xool gis nga xale yu ndaw yi ne ci dëkk ci kër yi bu dee xale yi chinois yi dañuy teel a yeewu bu dee xale yi africain yi dañ leen teel a jàngalum pecc di tàccu rek ñuy tëb dal bu ko defee chinois ba raw na kii xaat chinois ba raw na kii xaat mën naa defar mentalato di ko jaay kii wala mu def bant sécurité moom moom seen doomi chinois ji di ko jaay kii lu tax seen kilifa ñoo leen orienté teg leen ci aw yoon woo xam ne euh, ci la ñu war a jaar waaw euh, bu dee kilifteef ci wàllu alal kilifteef ci wàllu alal bëgg nañ kilifa ga sartoo ñett la ci jiitu mooy mu mat ko sëkk kilifa gi mu mat ko sëkk hmm? waaw waaw mag kim yilif amum xel mu ko ëpp am liberté gu ma sëkk ndax ku manqué yi koo yilif kilifteef ga mànki koo yilif alalam alal ja mànki kon bëgg nañu kii yilif xale bi mu mu raw mu mat yooyu waaw ma sëkk kilifa mag xale bi am xel moom boppam ñaaral ba ci sart yooyu kiy yilif xale bi ba ñu nekk koo xam ne kii dafa amul xel mbaa mu dese ni ko wolof di waxe ak mattam des àll nga xam ne xàmmewul guddeeg bëccëg koo ku mu yilif sa alal boo màggee doo fekk dara ñetteel ba ki yilif fekk mu doon ku mbokkal moom ci diine xale bi nekk jullit ci wetu ndeyam ak baay kilifa gi nekk jullit waaw ndax ci lislaam kilifteef gi ki yilif nit day bokk ak moom diine ci lislaam ñu bokk nekk ci lislaam gone gi ne ci ki koy yilif na ci ndax falaa yali umura ibnihi al muslim waaw loolu tam lu am solo la ci ci kilifteef kilifa gi yilif gone gi te yilif alal ji may nañ ko may nañ ko muy yaxantu ci alali gone gi maanaam di dem jaww bi di jënd di indi di jaay di jënd fii di yóbbu jaww bi di jaay bu at mi jeexee walla juróom benn weer mu xayma lim jot a am su fekkee ne bénéfice am na mu xaaj ko ñetti xaaj jël ñaar ya jox gone gi benn mu teg ci lam am waaye bu ko fa bàyyi rekk di ca dompi lekk sallallahu alayhi wa sallam nee bu yàggee alal ja jeex moo tax mu daan wax ne dee leen yaxantu ci alali ñi ngeen yilif lu ko mooy asaka jeexal ko hmm? waaw yépp yoo ci xam ne nag tasarruf baatil la dañ ko koy tere maanaam li ci jënd ay mbaxal di ci dem euh, ca poma di ci organiser ay po yooyu dañ ko koy tere yooyu yépp baaxul ci yooyu borom bi lu mel ni jënd ak jaay loo xam ne dana am bénéfice dana jariñ borom alal ji li muy nekk nekk gone dugal loxom associé fenn loolu alxuraan terewu ko ndax ma nga naan walla taqrabu maalal yatim illa billati ahsan xataa yabluxa ashudda ci suratul isra yi aaya 34 borom bi wax ne bu leen jege alali jirim lu dul jege bu rafet ba baa jirim bi màgg ngeen delloo ko alalam wut ay seede ñu seede ko ngeen bind ko joxe waaw loolu am na solo lool bu fekkee kilifa gi bàyyi la bàyyi la may nañ ko moom it mu def tasarruf ci alal yi gone googu waaw waaye nag bu mu tax moom it mu saax saaxee ko jënd ci lu amut solo ndax penc mi léeg-léeg sëriñ si Ahmad Tidiane si almaktum dafa daan wax ne jënd loo deewu dara ci suñu penc da nga koy gisee waaw mu ne te loolu ñuy jënd te doywuñ ko dara dana xatal kër gi dana yàq alal ji dana yàq alal ji mu ngoog beneen bi ci tomb yi mooy ndénkaan ginnaaw dafa yilif xale bi te am ndénkaan yuñ ko dénkoon ci xale bi moom tam bëgg nañu dañ ko tuddee wàllilu moxtaar mooy koo xam ne kii day taxawu xale bi dimbale ko ci taxawaay ndax léeg-léeg doomu aadama toll ci yaram wax ne gone gii day bëggoon naa ngeen tegal ma ko loxo bàyyil ma ko xel taxawul ma ko waaw moo tax ñoom ci ca pénc ma dañ daan wax dénk dénkaan yooyu ki ñu dénk gone gi dénk ko àllali gone gi war naa nekk koo xam ne kii mag la al buluux ndax bu dee mag xel ma mën naa ñor ba mu mën a taxawee alali gone gi taxawe gone gi ñaaral ba am xel ndax ki amul xel mën nañ koo jox alali gone gi ak gone gi mu sànk alali gone ga waaw xam nga léeg-léeg ci gone yi nga gis ku jënd lu mu bëggut rawatina gone yu jigéen yi dem ca barab ba ñuy jaay ay ay yére nga jënd fa yére yoo xam ne boo ko solee sa mbagg maa ngi ci bitti sa ginnaaw gaa ci bitti sa ndodd maa ngi ci bitti ah sa jumbox baa ci bitti te kat def nga ca xaalis loolu dañ koy bañ ci ku ku ñu dënk gone dënk ko alalam danga koy fexee miinal sol lu baax waaw eh, bëgg nañ ci yit al islaam ni ma ko waxee sànq ki ñuy dënk gone gi mu nekkub julit ku ñuy dénk gone gi dañoo bëgg mu nekkub julit ab julit buy dénkaane dañoo bëgg mu dénk ku nekk julit ñeenteel ba bëgg nañ ci ak maando ak maandu ndax koo xam ne kii faasix la tey pasara pasare àll jàmbur ku ko dénk gone dénk ko àllam balaa màgg mu am lu mu ca def te loola mu cay def euh, du gën loola mu cay def du gën ndénkaan it danay am àpp bu muy jeexe gone gi mën naa dem ba mënal boppam am xelam ubbiku ay xalaatam yooyu su boobaa nag dañu jël alalam woo ay seede ñu toog ñu delloo ko alal ji nga xam ne moom la amoon waaw alal ji nga xam ne moom la amoon su ko defee bu dee ay immeuble la kër ak yu ñu demee te ñu war koo jaay te ñu war koo jaay ñu jaayee ko prix yu baax delloo gone ga lam am waaw nun nag léeg sunu sunum pénc buñ tollee ci miraas ak a jaay ñaare du nu jaay ndax dañ naan góor gi noonu na buñ jaay kër gi borom borom bi tabaaraka wa ne jaay leen kër gi borom kër gi ne buñ jaay kër gi borom bi tabaaraka wa taala ne miiraas leen alali borom kër gi doom yi ne nañ waxtaan ba juboo hmm? waaw foofu asroq la su su doy waar su jara dugg su jara bàyyi xel tabaarakallaahu waaw mu ngoog ndénkaan yooyu sallallahu alayhi wa sallam day santub jullit saa bu dundee weer lu topp mu génnewaat testament walla ndénkaanam la ca war bees mu beesal ko ca la ca wara dindi lañ ca war a dindi mu dindi ko ca ndax doomu aadama saa bu dundee weer ak lu topp weer lu topp coppi ko mën naa am ci xalaatam akum xelam ak yokk mën naa am ci alalam wala ak wàññeeku am ca loola su boobaa lam bindoon lay laajaat yokk ca lam ca war a yokk wàññi ca lam ca war a yoñ wàññi joxaat leen ñu continuer waaw lu am solo la lu am solo la mu ngoog su ko defee kañ la kañ la kilifteef gi di jeex kilifteefu kilifa gi te mu yilif ko gone geeg lim am bi muy jeex mooy bu xale bi àggee ci arushdu arushdu mooy bu ñu ko joxoon xaalis du ca jënd lu jënd wut waaw du ko pasar pasare du ko maye pour bëgg yaa fi man ak yaa fi nekk moo tax boroom xam-xam ñu ne yu'rafu rushd an tariq al ixtiyaar wa tajriba waaw yu'rafu rushd an tariq al ixtibaar wa tajriba fa ida tabayana bi tajriba rushda sullimat ilayhi amwaalu wa zalatil wilaaya anhu bu ñu ko nattoo gis ne kii mën naa yor alalam su boobaa ñu daal takk alal ji jox ko wut ay seede wut ay këyit bind kenn ku ne bind eh, ñu ñu ñu joxe ko mu ngi mel ni tey bu nu santee miraas léeg-léeg buñ ca noppee ñu ne nañ daal bind benn projet verbal ñun ñëpp ñu teg ca suñuy identité signé ko jox waa kër gaag ñooñu <laughs> waaw mas nañ cee def benn commissaire woonu ndeysaan yal na yàlla yokk ko wér waaw commissaire woonu yéen def mira sànga ma ne ah waaw lu tax ngeen defe ko nàngam ma ne ah loolu nu as alxuraan sant bi loolu kat doon la nu sant nu defee ko nii commissaire ne signal fii ma ne ko li tubaab bi def la loolu doo nga laa ci man waaw di sànn yàlla du ma yàlla yërëm <laughs> kenn mësu koo gis rek ngoog kon buñ ko natoo ba xam ne xam na xaalis ba xam ne mën naa denc ci xaalis ba xam ne mën naa yaxantu ci xaalis ba xam ne moom mii moo mag xaalis ñu jël xaalisam jox ko daal di koy def nag ci ay këyit waaw daal di jeex am na ñu ne kooku ñu denc xaalisam bu amee ñaar fukki at ak benn mënees na koo delloo xaalisam waaw mënees na koo delloo xaalisam mu ngoog su fekkee ne jox nañ ko xaalisam te mënu koo yorit delloo siwaat xaalis bi joxaat ko kilifa gi du wàññi dara waaw du wàññi dara te it su boobaa loola mooy gën ci gone gi mooy gën ci alal ji waaw walla ki nga xam ne moom lañ joxoon xaalis bi dénk ko gone gi am lu xew ci moom ci wéradi walla wéradi xel wala faatu mbaa yu ni demee su boobaa yi ñuy delloo si yëf yi jox ko ku euh, ki moom àll ji wala bokk faatu am waaw faatu maanaam ma génn àdduna am loolu tam su ci amee rek jëlaat alal ji delloo ko ki ko moomoon te daal di am waaw kon faatu ca la bokk xale bi am fukki at ak juróom-ñett nee nañ ca la bokk wala ñaar fukk ak benn waaw euh, kilifteef gi ñu teg ko ci loxoom su fekkee ne mat na te xam alal ñu delloo ko alal ji nga xam ne moom la am mbokk yi beneen bind nga noonu bu am solo ci wàllu kër gi jëmoon ci gone gi bu nu yàlla maye nu déglu ko ñaari yoon ba ñetti yoon jàpp ñeent dañu indi nag ci beneen tomb bu am solo ci kër gi ba tey muy dépense an nafaqaat incha allah kon yàlla nañ ko déglu benn yoon ñaari yoon ñetti yoon jàpp ñeent ñu ñëwaat ci beneen tomb jaajëfal nañu jaajëfal képp koo xam ne ki ak ñuy déglu te lu soxna yeeg sëriñ si ak sëriñ foo yëkkatee jotaay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seen i këyit bëgg na fi ñu fàncal xibaar yi ci tubaab fi fàncal ko ci tubaab ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii nga xam ne mooy sànni wax jaww ji waa Wakaam man koo dégg ak suñu sponsor bii di C3S la ci bitim réew yàlla na ñëw li ci biir réew mi yàlla na jar yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu